depuis ñu commencé rediscuter code bi de la Bataille, ñi ngi la voix pour dire que nous devons passer de l'autorité parentale à la puissance paternelle. pourquoi parce que si autorité parentale rek da ngay jël chef de famille bi nga jox ko or gis nañ fi ay famille yoo xamante ni ñi chefs chef de famille parce que naturellement c'est des femmes divorcées avec des enfants ñoo ont ni ñooy yore seen des di nous seen doom te góor fekku leen fa kon kooku boo bëggee que da divorcé malgré que y yore famille bi ce chef de famille góor ba nga divorcé la day daal di metti ci mom lolu moy conséquence moy indi lolu nga wax sànq bi bëgg na voyager ànd ak yaayam mais bala muy dem faaw papa ji bindal ko euh, autorisation de sortie du territoire national lolu yëpp mu nekk ay contraintes yo xamanteni ne ñun dañ koy xam nañ ko ndax dañ koy dund en tant que jigen mais également dañ koy dund ndax dañoo nekk société sénégalaise xam ko nak mais di ci dox lu wër liñ ci dox nak moy faaw ñu changer disposition yoy ci code de la famille bi mais ku xam société sénégalaise xam ni mu bindoo di changer le code de la famille du yomb parce que on a des réalités également traditionnelles yo xam ni le Sénégal dafa ak pays africain yu bari loolu dafa nek ci li ñu changement sociétal parce que bala nga ni damay changer façon bu nit ñi di dundé faaw nga woté à un large consensus maanaam waxtan bu ba convaincre les acteurs parce que tay buma ma jigen ni wala ma wo góor ak jigéen toog ni leen dañuy changé léegi code de la famille bi dañ koy dindi li nga xamante ni ñi lañ ko joxol dañ koy jox jigen ni même si buñ ko defee ci taxi yi mën nañ ko bañ appliquer appliqué ndax mën nga ñëw ci mise en œuvre bi mu am ay blocage parce que on va vous dire que ñun on est un pays musulman ou en tout cas par excellence musulman ou dañuy góor moy kilifa famille bi wala ñun le divorce bi c'est pas encore prononcé donc il y a beaucoup de facteurs yo xamni dañ ko wara saytu waxtaan ci am ci consensus do ko mën a appliqué